Omar Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. Omar euh, Cissé nga nekk directeur exécutif bu ACIS euh, di association des commerçants industriels du Sénégal euh, fi ñu toll nii gannaaw ay semaine concertation njiitu réew Sénégal annoncé wàññi teg dund gi surtout lu si demee ni kii ceeb diwlin suukar mburu tey ji lan mooy position wu ACIS par rapport ak décision bi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko ngir. jàppale askan wi nga xamante ni gis nañu dund gi cher na trop. waaw soxna si loolu day dañ koy rafetlu ndax euh, wàññi loo xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne borom kër yi ñu ngi koy jànkuwante ci dund bi loolu moom duñ mën a def lu dul rafetlu rafetlu ko ndax nag balaa daray xew ñu nekk commerçant dañoo nekk ay borom kër di yëg li ñëpp di yëg di jënd li ñuy dundee di ko yóbbu suñuy kër kon buñ ko wàññee ñun dañ koy yëg bu yokkoo dañ koy yëg kon duñ def lu dul rafetlu ko Euh, xanaa kay nag euh, li ci nekk mooy euh, dëgg la buñ sañoon prix dina yomb yomb bu lu waaye am dugg marché waaye dafa am na contexte boo xam ne maanaam mbir mu ñu dund moo xam ne moo waral li xew-xew wolof dafay wax nu lu xew balaa xew ba a xew te lu xew am na lu ko xewal mm-hmm. loolee nag buñ ko jàngatee ci ay semaines yi passé lalu woon di xool secteur bu nekk naka la def ba dund ba wàññeeku foofa te loolu nag pour mu am dañuy xool lu ko waral ak yan saafara lañ ci mën def yoo xam ne tey tey lañ koy appliquer ak yoo xam ne dañ koy appliquer ci fan yu néew ak yoo xam ne dañ koy xalaatal ci eh, kanam kanam mu bokk nag ci li président wax comme yooyu nga tudd nga xam ne dañ koy dundee chaque jour eh, ñu war koo wàññi te wàññi ci nu mu gën a gaawee xanaa rek liñ ci wax mooy eh, jël ko nag appliquer ko immédiatement maanaam démb ñu waxtaan ci tey ñu ne dafa war a nekk loo xam ne lu ñu war a fekk ci marché yi la loolu moom jafe la. ndax xam nga ab commerçant moom day jënd ay bagages extorqué di jaay ndànk-ndànk da gis ko dem dugg dugg un mois euh, jaay ba mu wàññeeku mu dem jëndiwaat du bàyyi ba mu jeex kooku nag boo xëyee lam jëndee woon mu cher lool nga indi prix boo xam ne moo gën a yomb lam jëndee woon day indi jafe moo tax euh, gannaaw buñ waxtaanee ba juboo ci ay prix waroon nañoo mën a euh, commerçant yi ne leen nag li ngeen fi yor stock ñu ngeen jàpp ne ñaata fan ngeen ko war jaay ñu waxtaan ci loolu à partir de là ñu ne nañ commencé loolu daal lañ ci am li nga xam ne moom lañ ci wax sinon rafetlu li nga xam ne moom mooy euh, ak ci di woo commerçant yëpp nag ñu jàpp ci ci vraiment euh, yombal euh, askan wi kon mën nañu wax ni concertation bi nga xam ni yéen ak njiitu réew mi concertation yi ça s'est bien passé waxtaan ngeen daal ba jiboo waaw alhamdulilah waxtaan bu juboo xaj na à cent pour cent du yomb waaye li ëpp juboo nañ ci te rek yéene bi moo doon ñun ñëpp ñu fexe ba nguur kom euh, acteur ñu fexe ba askan wi du digg yomb ci ñoom loola nag la ci gën a bëri def nañ ko comme ni ma la ko waxee am na ci yoo xam ne jàpp nañ ne warees na koo mën a jëfandikoo léegi-léegi am yoo xam ne dañuy bàyyi ba fii ay fan am yoo xam ne dañuy bàyyi fii ak ay weer waaye yéene bi daal moo doon fexe ba yombalal la askan wi seen dund loolu moom euh, mën nañu wax ne waxtaan nañ ci bu baax mais mais mais ñu ne mesures yi pour l'instant Dakar rek la concerné loolu da nga koy dëggal yow waaw wala déet. waaw loolu la effectivement xam nga Dakar fi la yëpp di jógee dem ci yeneen gox yi. Mhm. waaye nag bu marchandise war a dem ci ay gox xam nga dafa am yeneen frais yu ci top tam transport moo tax prix yem moo tax comme ni ko chef de la l'État waxee président mooy ni euh, gox yi nga gox goxee gox goxaadi gouverneur ya fa nekk. dinañ waxtaan ak seen kii xool ku ci nekk marchandise bu ñëwee ba joge Dakar ñëw ba Kaffrine euh, wala ñëw ba Tamba wala ñëw ba Kédougou lu mu lay taxaw à partir de là ñu seet lañ cey teg kon noonu mu ko waxee noonu la te yenu na maanaa ndax transport bu bari ak frais yu bari yëgal bi wàcc bi fay transport bi loolu ay frais la yoo xam ne ñoo koy def kon bu ñu ko bëgg a jëndee Dakar jaay li Dakar di jaayee lool du sotti moo tax effectivement euh, noonu rek la mën demee. ngeen waxtaan ba nangoo wàññi comme ni ko njiitu réew mi bëggee euh, yan solution la leen njiitu réew mi tegal si wàllum taxi surtout pour ngeen mën a wàññi yenn marchandises yi lan la leen proposé par rapport à ça. waaw xam nga moom moom proposé wu daf ñu waxoon dem leen waxtaan xool li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi ngeen tegal ma ko luñ ci mën a appliquer ñu appliquer ko mm-hmm. euh, su ko defee bu dee da ngaa jël tey lu mel ni port de Dakar wax nañ li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi ci wàllu manutention bi ci wàllu euh, consignation bi ci wàllu Euh, taxe de port yi ñu waxtaan ne kat ay taxe la yoo xam ne war nañ ko xoolaat dafa dafa yàgg cher na yii amul sax raison d'être am warta waru fee nekk yii euh, dañ koy defee ci façon boo xam ne euh, unilatéral dañ waxtaan taxe yi nga xam ne dañ koy daan fay te mosta nekk lu am base légale base légitime ñu dindi ko taxe yi nga xam ne dañ ko daan fay te wax dëgg yàlla jaaduwul ndax ëpp na ñu wàññi ko taxe yi nga xam ne dañ daan toog rek ñoom fixé seen bopp te daawuñ ci waxtaan ak nit ñi ñu bàyyi ko donc su ko defee yooyu yëpp euh, waxtaan nañ ko teg ko ci taabalam te incha allah wax na ne danañ ci danañ ko jëfandikoo su defee loolu bu amee rek incha allah euh, dana yombal mbir yi xanaa kay fàttali ne euh, xaj na da ko laaj ci sa laaj. Mhm. mooy ne ay milliards dégg nañ defee defe ko ci ay. subvention jege na sax yaakaar naa trois cent la ñu waxoon ñetti téeméeri yoo xam ne dugg na ci. e jógee na ci gafak réew mi dugg ci eh, dund bi. Mhm. waaye terewul ba tey. ñu ngi toog di wax naan. Mhm. dund gi cher na ba tax ñu def concertation ba war a proposer waat leneen. loolu li muy tekki mooy bu dee jafe-jafe yi téeméer la mën ngaa xam ne quatre-vingts yi nekkul loo xam ne Sénégal moo ko moo ko moo ko waral wala gouvernement yi wala commerçant yi waaye dafay jóge bitim réew mooy lu mel ni la ñuy jëndee bitim réew. loolu du commerçant du état ku ci mën ndax ki mbay mbayam di ko jaay wala mu defar produit am di ko jaay ko nangam ci à l'étranger mënoo li ñu tuddee taux de fret mooy li ñuy transporter conteneur mu jógee bitim réew ñëw fii loolu it ay compagnie yu ko xam ne dëkkuñ Sénégal dëkkuñ Afrique bitim réew lañ nekk Europe ak Asie ñoo ko moom ñooñu mën leen wax ne trans ñoom ñooy seetlu leen neex ñu transporter li nga xam ne mooy dollar bi ñuy jëndee nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ñi muy yéeg ak wàcc ñu ñëpp gis nañ ko am na jamono sax dollar bi mu ëpp euro bi loolu it mënuñ ci wax kenn na ko wàññi ko du état du commerçant te nag boo doon jël euh, jafe-jafe yi nga koy euh, xayma maanaam juróom-ñett fukk yi boo jëloon téeméer bu nekk daanaka loolu moo ko waral moo tax nag euh, xaaj buñ ci mën a dugal léeg-léeg euh, li mënoon a feeñee du ko feeñee donte nag am na lu wàññi tuuti ndax xam nga ne ca gannaaw euh, litre dawlin bi nga xam ne ñeent ñaar fukki litre lay de lay def daan jar ba juróom-benn tey juróom-benn junni barki de mu man yónnee na jëbbante nañ ma ko ma jënd ko fii à vingt cinq mille am na ñuy vingt quatre mille am na ñoo xam ne ba Kaolack vingt trois mille waaye des na ba tey ndax àggul woon foofu ndax maa ngi fàttaliku euh, ba dawlin ba treize mille cinq cent quatorze mille cinq cent quinze mille ñu naan seer na kon bu ñu nee ba mu trente mille ba ñu naan tey vingt cinq mille kon ba tey seer na waaye ñetti facteurs yooyu daal bokk na ci yi nga xam ne euh, tant que nag euh, maîtriser wuñ ko wax ne da dëgg dana dellu fa nekkoon moom prix dina jafe bu dee nag taux de fret bi moom mënees na ci am proposition as am na lu ci wax daf ne du loo xam ne nii commerçant bi wala benn état moo ko mën a waaye Afrique sow jant yëpp tey buñ groupe góor buñ groupé woon moo xam CEDEAO la moo xam euh, Afrique euh, entière la UEMOA euh, ñu ne na nañu fexe ba compagnie yi ñu waxtaan ak ñoom am ay contrat wala am ay convention yoo xam ne dañuy signé ak ñoom ñu ne période bi ba période bi juróomi weer yi wala juróom benni weer yi wala at bi prix yi mënta weesu lii kon danañ am danañ ci mën a am bu demee ba war a yokk it dañuy toogaat waxtaane ko duñu jékki-jékki rek ñu ne jógee cinq mille dollars dem quinze mille dollars war a cinq mille dollars dem dix mille wala dem neuf mille bu boobaa dañ koy waxtaanee loolu état yi dong ñoo ko moom la ñu su fekkee ñu ngi ñuy sinon état benn état mënu ko à beneen commerce yoo xam ne ay association la rek yoo xam ne dañuy jël li nga mën rek mooy jéem a dem booloo ak say membre dem signé ay convention ak yenn ligne nga gis ko ñu te yow doo am fenn foo ko yoxoo kon daal ci wàllu taux de fret bi moom loolu lañ ci proposé. Mm-hmm. donte loolu comme ni ma ko waxee su au plus haut niveau. Euh, souvent yéen commerçant yi ñu leen di euh, tuumaal spéculation comme ni ko tubaab di waxee maanaam di yokk pris yoo xam ne tegoo leen ko fen lu dul dégg ni yokk am na rek ngeen yokk pris yi lool lan ngeen si tontu askan wi ñu bëri di ko jàmbat. waaw liñ ciy tontu rek mooy li nga wax dañu ko tuumaal. yow yaa waxal sa bopp la tuuma la tuuma nag moom jombul kenn yonent bi gën a baax ci àddina bi tuumal nañ ko dof tuumal nañ ko euh, njabarkat ci baal nañ ko ne ko euh, ab poète nga rek da ngaa làmmiñ wee neex rek ngay waaye yàlla yónniwu la kon buñ ba bëgg a tu ñu bëgg a tuumaal ñun du ñu wàññi dara waaye nag euh, li wolof di wax lu tëw a feeñ rek dafa yàggul doon nañu wax ne ñun la ñun la ñun la waaye dem nañ ba xam ne léegi nekkatul ñun xanaa nag dañoo xaw a weex donc ndax tey eh, bu méttee daal ñu ne commerçant yi nga xam ne ñooy ubbi seen i bitig la donte ñun ñooy corps bi nga xam ne ñëpp ñu copier waaw yéen nangu leen kenn koo xam ne tey dana sol mbubu journaliste yi na euh, waaw usurpation tey journaliste yi fonctionnaires yi député yi ñëpp tout le monde fait du commerce ku ci yor dara rek yaa ngi def def commerce léegi léeg sax ñun dañ ci nekk ay victimes parce que ñoom xamuñ ko c'est pas des commerçants des métiers. moo tax tey lu bëree bare bare bëri yàq nañ ko ci commerce bi te fekk na ñoom ñoo ko def ngir ñàkk xam waaye lu xew rek bu demee métti ñoom dañu rocceeku tegu ne la ñu ne léegi ñun la alakuli li nga wax moo ci nekk mooy tuuma la euh, mbir mi moo tëddee noo xam ne actuellement mënatuñ ko ñun loolu mënatu a nekk libération bi ñu nekk nii nga xam ne dañoo ubbi commerce mu muy na ŋàpp ŋàpparal ku neex commerce lu la neex def mënatoo cee de spéculation boo ko defee doo jaay ça c'est tax loolu mënoon naa am bu njëkk mais fii ñu jamono yi ñu nekk mënatu la nekk le monde ci boppam mel noonu waaw waxuma laa nag benn pays bu mel ni Sénégal tit dëkk bu ndaw nga xam ne balaa ngoon a jot nga xëy yor sa téléphone war ko xam li ci marché bi nekk ak lu jar hmm. donc su bëgg spéculer du sotti gars yi dañ lay bàyyi Dakar dem jëndi Dakar dem jëndi marché bi Touba hmm. parce que xam nañ fi nekk xam nañ fi mu gën a moo tax loolu yombatu coow la wax la rek ñàkk xam la quoi mais ñun ñu nekk ci marché bi xam nañ li nga xam ne moo li parfois tamit am na loo xam ne consommateur yi mënuñ koo comprendre mooy parfois produit local dafay gën a cher produit importé euh, loolu lu koy expliquer souvent. waaw loolu nag daf ñuy gën a jox ñun dëgër laay parce que sëgam nag produit yi nga xam ne ñun moom lañu ñuy defaral suñu bopp moo yokk ba ñëpp yëg na yokk na kon produit yi ñuy importé waxi noppi kon bu ñu bëgg a wax ne ñun ñooy spéculer ñun ñooy jafe xam nga kon loolu wax ju yàqu la sa laaj bi tontu na laaj bële. waaye pour jox la explication ci produits locaux koy comme ni ngeen ko déggee ñu koy euh, ni ñu ko déggee ngeen koy déggee mooy na ñoom dañuy wax ne li koy yokk mooy li mbayee moo metti moo seer mm. jiw wi cher na jiw bu baax cher na trop trop trop trop nga ñëw nag la cee war a dem ci engrais ak phosphate ci euh, urée ak yooyu yow xam nga ne engrais fii lañ ko doon defaree saako bi daan la jër ay sept mille cinq cent six mille je me rappelle très bien à l'époque neuf mille dix mille ñu ne seer na ñu dem ba tey saako bi di jër mille francs kon loolu bokk na ci li indi mbir mi chair ba jéggi dayoo kon sëgam produit locaux yi ci boppam ñooy cher te fii lañ koy defaree wala li ci ëpp bokk fii lay joge kon euh, rawatina li nga xam ne moom à cent pour cent lay joge bitim réew kon loolu lenn rek na ci ay explication ak yeneen yoo xam ne nii tey bokk na ci yi nga xam ne mooy tax produit yi cher kon daal euh, mbir mu yaatu ñu gis ni tamit euh, Auchan même bu fekkente ni ñu bëri d'accorduñ si rawatina yéen commerçant yi mais gis nañ ni yéen jamono bi nga xam ne da ngeen di yokk prix yi nu mu leen neexee Auchan moom prix fixe la am loolu lu ngeen siy tontu. ah waaw euh, Auchan prix fixe la am euh, yaakaar naa ni ni ma ko seetaanee nga ko seetaanee am na émission boo xam ne télévisée gis nañ ko ay pratiques yoo xam ne mi ngi am ci Auchan te duñ ko wax. liñ lay bindal ci étiquette biñ lay bindal ci kii bi na la moom lay jar boo ñëwee di fay dana am wuute aslëf lu ko waral ba pare it am na yenn pratique yoo xam ne gars yi sele nañ ko waaye liñ lay jaay ñun contrôle bi nga xam ne am la ñuy def bu sévère ci lu avarié ak loo xam ne kii ak nangam nangam da ngay ñëw gars yi di ko déplorer euh, marchandise la moo xam ne nii fi muy jógee li ci gën a bëri bitim réew la ci yenn firme yi muy jógee xam nañ ko condition yi muy ñëwee xam nañ ko euh, ba tax ay mbir yu baree baree ci nekk am na ci yoo très sincèrement day poser un problème de santé publique mais duñ ko wax xam nga gis nga bis boo ñëwee rek <coughs> jënd marchandise mu gën a yomb ñaar wala léeg-léeg ba ci ñetti yoon ci la nga tàmman daan ko jënde bul xool yombaay bi rek taxawal nga defaat seetlu xool boo xam ndax amul ne ci ginnaaw. Hmm. foofu nag laa ciy yem ba tax kon. Euh... du lu yomb rek euh, baax na waaye du lu ñuul rek na ker la donte nag euh, am na loo xam ne dañ ko reconnaître ñun autres commerçants sénégalais. Mm. dëgg yàlla euh, clientèle bi nag buñ sañoon di dem ci barab yoo xam ne dana climatisé dana set dana a am vraiment qualité de service loolu am nañ ci càggante waroon nañ ko mën a def te comme suñ bopp la ñuy liggéeyal ci réew mi la ñuy liggéeyal su boobaa dinañ fexe ba suñu askan duñ leen jaay loo xam ne lu manqué la duñ leen jaay loo xam ne lu yàgg la duñ leen jaay xam ne mën ay risques. loolu it wax dëgg yàlla maa ngi woo sama bopp di woo commerçant yëpp ñu góorgóorlu ci fexe ba ñun it ñu taxawal yoo xam ne ñun ñoo koy moomal suñu bopp euh, suñu askan te man leer na mën a tey euh, bu ko sénégalais yi defoon rek danañ bàyyi ñi lay ñëw ci sénégalais yi kon maa ngi woo sénégalais yëpp ñu góorgóorlu bu kenn ragal fexe ba mbarab yooyu nga tudd noonu euh, ñu fexe ba taxawal ci lu ko gën a mucc ayib te mën naa nekk jël ci ay sénégalais ñuy liggéey bu boobaa danañ leen bàyyi ñëw si ñun ndax duñ leen jaay loo xam ne ay da ci jërëjëf mu ñu ngi lay jaajëfal di la sant di la gërëm ci li ñu may osa assis ci sama tur mën joxe xalaatam ci li xew ci réew bi jërëjëf. voilà jërëjëf may fàttali Omar Cissé yow yaay euh, directeur exécutif bu association des commerçants et industriels euh, du Sénégal ñu gën ko xam ci assis jërëjëf merci beaucoup.